président ñu ngi la gis ci audience Ngaaka Blindé bi tey fii ci tribunal Dakar ñëpp xam nañ ne Ngaaka Blindé ni mu mel ci géejawaay yow itam ni nga mel ci géejawaay ak li nga fa représenté waaye si teewaay bi tey ñu nekk loo xam ne pour nañ ci xam lan moo ko sabab. waaw waaw teewaay bi du teewaay lu dul solidarité jàppale suñu rak suñu xarit doomu géejawaay aussi ñu war fi ñëw ànd ak moom tiis wi ko dal. jàppale ko ci li mu nekk ba te ñu ngi ñaan yàlla yàlla wàccal ko coono bi mu dellu ci njabootam ndax xale la te njabootam yaakaar na ñuy ñaan yàlla rek yàlla may ko boppam affaire xale la nag erreur ak ndog-ndog moom du ñàkk ci dundu doomu aadama waaye li ñu koy ñaanal daal en tant que sunu rakk sunu xarit mooy en tant que doomu waaye mooy mu ñibbi dem këram geenu golo nak nee nañu gudd na lu ci dal borom yëg ko ci njabot gi la bok donc dañ ko jappé nu sunu rak bopp euh té motax mënuñu fee bañ a ñew ñëw biñ fi nak euh lu nu yek la lu nu sentir la waaw c'est pas le responsable politique qui est là ndax ka blendé je me rappelle 2014 suñu son euh, suñu son campagne bi mom moko défon donc ça veut dire que même bu dé ben fan taxawal nañu donc bu li amé sunu sunu sunu wàll sunu sunu taxawaayu gor mooy ñu ñu ñu jàppale voilà loolu rek la.